الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب وبشكره تزداد النعم وبنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون illa man ata allah bi xalbin salim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di wax comme ni ko mbokk yépp waxee rek jiital ci nuyoo boobu Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi lool te te mébét yi mu am ci xam-xam te mbokk yëpp biral ko suñ borom kàttanal ko ba mu mottali ko te ànd ak murid di teg ci nuyoo boobu nag euh, sëriñ Moustapha sàmba mi nga xam ne moo nekk ci boppu sëñ Massamba moom di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ba àggale naal yi mu naal yëpp di nuyu itam mbooleem ahfaati Cheikh Massamba Mbacke di ko jaarale ci nu di jaarale nuyoo boobu ci Serigne Cheikh Male nga xam ne bu ñu ko nuyoo rek mais mel na ne nuyu nañ mbooleem sëti sëñ ma sàmba xam naa mbokk yi dañoo sàkk woon ci man ma wax kan mooy sëñ Balla joro ngir euh, tudde gi ñu ko tudde jataay bii xam naa ma jéem ci rek ndax xam naa ne guddi na te waxtu wi xat na dañuy tënk rek yu ci baree bari ci yu ñu waroon a wax mbokk yi junj nañ ko ndax xam nga mag ñi ñoom ñëpp wenn jiwu la Sëñ Tuubaa ji ci ñoom te meññet mi menn la foo ji waxtaane day mel ne yaa ngi waxtaane ki ci des te xam ne bu li ma buñ duggee ci biir li may wax nii boo koy xool da ngay mel ne ci sëñ Masamba laa koy wax wala ci maam Thierno laa koy wax wala ci keneen laa koy wax ndax nuroo guñ nuroo ay jikko ak nuroo buñ nuroo ay doxalin ah, xam naa sëñ ma Balla Coro buñ ko dee wax mooy kan ci askan lañuy ñuy tàmbalee comme li ngeen ko xamee yéen ñëpp loolu daanaka duma ci sori euh, Mamor Anta Sali mooy waay juróom wu góor soxna Coro Diop mooy waay juróom wu jigéen mu ngi gane àdduna ca Pataar Pataar googu euh, sëñ Mamor Anta Sali dafa sañcoon gannaaw bi nga xam ne jóge na ñooro muy poroxaan ànd ak Lat doon ko xelal ci wàllu diine mu sancal ko dëkk boobu di pataar fa la sëñ Balla Coro gane àdduna soxna Coro Jóob moom itam ñi ngi ko joxe woon sëriñ Mamoor Anta Sali foofa ca poroxaan gannaaw ba mu fa dajee ak la ba fa Seex Mamoor Anta Sali dalee dajee ak Lat Joor kóllëre Euh, dox seen diggante ci la jëlee jarabaatam bu ñuy wax Coro Diop jox ko ko mooy waajuru sëriñ Balla Coro mu bokk waajur ak Serigne Cheikh Coro ak euh, soxna Kumba Tayba ñu doon ko wax Aïsatu Mbàkke ak soxna Xari Mbàkke xam naa ne loolu lay wax ci askan yi duma ci sori beneen tomb bi ciy topp ci gàttal mooy ay jaar-jaaram ci wàllu xam-xam comme niñ ko xamee rek euh, wax nañ ne waajuram sëriñ Mamour Anta si daf ko teel a jébbal sëriñ Touba dénk ko am njàngam ne ko daal kii dénk naa la ko te am njàngam yi yow laa ko dénk ndax boobu fekk na sëriñ bi euh, wuutu na waajuram ci daara ji mu nekk ndaw mu jox ko ko sëriñ bi nag niñ ko xame ci méthode mooy ku gimmee ci moom rek dalay daal di sóob ci xam-xam mbokk yi wax nañ ko nga xam ne ni mu waxee ne boo leen ragalee gàcce na ngeen jiital xam-xam balaa ngeen di jëf in xiftum xajal fa qaddimu taalluman ala amal loolu mooy méthode am te loolu ci la jaarale ñépp ku gimmee ci moom nekk ndaw rek ci loolu la la jaare jiital na ci yow xam-xam ngir nga mën a teg sa tànk ci sunna ndax yoon wi mu wi mu xàll moom Cheikhuna Cheikhul Khadim dafa doon yoon woo xamante ni du yoonu way xamee kese rek yam ci waaye da xam ba pare jëfe muy nga boole al ilmu wal amal importance bu boole ñaar yooyu am tax mu wax al ilmu wal amalu jawharaani li xayri daarayni yajlibaani nga xam ne xam-xam ak jëfe moom njëriñu àdduna ak àllaaxira mooy li koy xëcc bu ko defee am xam-xamam moom mi ngi ko sàkkoo ci diggante Cheikhul Khadim moo ko dalal jàng ab diir boole ko ak maam Thierno Ibra Faati moo ko jàngal ba mu mokkal alquranul karim jàngal ko it xam-xam ginnaaw bi ci ay yu ñu doxal ci ay boroomi xam-xam wax nañ ne jànge na ci sëriñ Maam Mor Jaara xam-xam ginnaaw bi mu dellusiwaat ci loxoy sëñ bi sëñ bi nag commencé di ko teg ci yoonu tarbiya ak tarxiya comme niñ ko xamee ci yoonu murit tomb boobu nag nga xam ne mooy tarbiya ak tarxiya mooy ñaareelu tomb bi mooy tarbiyatuhu arruxiya nga xam ne moom mi ngi ko tàmbalee ci jamono yi nga xamante ni ni moom la sëñ bi nekk Tuubaa boobu moom fekk na mu wattu alxuraan jeexal fànni xam-xam yépp sëñ bi na commencé di ko yar di def ci moom li nga xamante ni moom la xam-xam war a jariñ ci nit muy jëfe ko tarbiya nag buñ ko waxee ci yoonu murit murit d'abord buñ ko waxee mooy ki nga xam ne dafay làmboo li ñu tudde al iraada al iraada mooy namm ci yàlla nam am ngërëmul suñu borom nam àgg ci suñu borom subhanahu wa taala loolu nag sëriñ bi bi muy tàmbali yoon wi daf ñu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko wax ne rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi fi xat loolu sëñ euh, fàll wax na ko léegi sëñ bi bàyyiwul jàngale waaye nag da cee yokk leneen muy tarbiya bil himmati bil himma himma mooy lan himma boobu nga xam ne moom la sëriñ bi jëmbat ci xoli murit yépp nga xam ne murit bu nekk danga war a am himma faw nit ñi xam alhimma mooy lan te alhimma boobu boo xoolee mag ñi ñëpp moo nekkoon ci ñoom la jiitu ci ci ci ci li nga xamante ni moo nekk ci alhimma mooy an niya niya maanaam nit ki war naa am yéene am ngërëmul boroomam war naa am yéene jige boroomam la ca topp mooy alxasdu alxasdu li wajhillaahi loolu dafa nekk ci alhimma te murid bi da ko war a làmboo la ca topp mooy alhadafu alhadaf nit ki war naa am hadaf war naa am cible war naa am lu muy lu muy viser pour jàmm ko te loolu tam mooy boroomam mooy ngërëmul boroomam war naa am tam alazmu war naa amuk dogu ngir am ngërëmul boromam ngir jege boromam yii nii moom moom la alhimma làmboo te mag ñëpp boo xoolee lii dafa nekkoon ci ñoom dafa nekkoon ci seeni seeni jëf yi seeni jëf yëpp boo ko xoolee danga ciy gis yii nii ñu amoon xasd lañ li waji laay ñu amoon hadaf lañ ñu amoon azmu lañ yii nii ay baat la yoo xam ne ay baati xol la yoo xamante ne nii eh, murit bu dëggu rekk dafa war a nekk ci yow te loolu dañ nañ ko nemmiku ci ku mel ne sëriñ Balla ci roog sëñ Masamba ak ñi sëriñ bi yar ñépp lii nii daa nekkoon na ci ñoom bu ko defee ñu wéy tuuti ci tarbiya bi foofu la tàmbalee sëriñ bi jógee Touba 1895 dem Mbacke 1894 1895 Mbacke Bari jóge fa dem Ndar lépp mu ngi ànd ak sëñ Balla ba Ndar yàlla dogal la mu dogal 1895 sëriñ bi ñu yóbbu ko ci géej gi moom nag mu toog Ndar bi mu toogee Ndar ci booba wax nañ ne juróom fukki at ak juróom-ñett rek la am ndax boo foofu lay toll waaye ci e, melo yu ma doon wax nii am xas doom ak hadaf ak azmu gi poussé ko mu ne daal man daal du ma delluwaat damay toog fii nekk ci ay pexe ba xam sëriñ Touba ci yan loxo la nekk ak nu mu fa nekke ba ci sax su ma mënee dem fekki ko danaa ko def ci pexe yooyu nag ci la nekk ba ñu digal ko ne ko daal jàpp nañ ne li fekk yaa ngi yam ci dama ne mu ne ah muy làkk wolof pour nga dem fekk sëriñ bi wala nga mënal ko dara du yomb faaw nga jàng weneen làkk loolu moo ko poussé mu dem inscrire ci benn école franco arabe Saint-Louis jàng fa njàng moo xam ne njàng mu gaaw la dem na ba dégg làkk wi jekk ko man koo bind euh, loo ci wax dana ko xam mu mën koo wax itam waxin wu leer mu commencé nag wax nañ ne sax am na certificat ca jamono yooya am na sax menn mag mu ne ma moom certificat bi moom mu ngi mi ngi mi ngi woon ci moom da koo réer ci bëkk néegam yi la bokkoon ay njabootam ñi ngi fi bi mu amee lool ci la commencé nag di def ay démarches la ca jiitu mooy wuti autorisation de voyage boo xamante ni dana ko may mu dem fekk Serigne Touba yàlla dogal mu am ko ndax booba wax dëgg yàlla euh, amoon na ko tubaab yi xawoon nañ ko dugal ci seen biir nekk na fa tam di di bi mu defee autorisation bi mu wutee autorisation boobu ba am ko mi ngi doon liggéey ci poste bi ci Ndar nekk fa doon di transcrire ay lettres ak di traduire ay ay murasalaat ñi di ko fay ngir bëgg muy buy dem fekk Serigne Touba mu am lu mu yóbbaale. bi loolu amee maam Thierno Ibra Faty dañu wax ne da koo yëg comme boobu moo doonoon seen kilifa te moom la sëñ bi dénkoon njaboot géegi lépp. mu jox ko ndigal ne da jox kayit woowu maam Cheikh Anta Mbacke mu dem fekki Serigne Touba ba kayit woowu yàlla dogal na ci la maam Cheikh dem fekki ku tedd ki waaye yamut ca loolu mu ne comme xam na yoon ni na dem wutiwaat beneen bi mu wutee beneen nag ba am ko ci la amee ay xibaar yu leer xibaar yooyu dañoo am wuute ne ci Cheikh Sidiye la jóge wala ci Cheikh Saadou bi ndax Cheikh Sidiya xam nañ ne daan na def ay intervention ci ci ci bi bi nekkee foofu ngir mu ñibbisi kon xibaar yooyu mën naa am xañ na foofu la jóge mën na am tam ci Cheikh Saada bi la jóge wala waaye ala xaal li ci man di am am na daal ay xibaar yu mu jot yuñ ko wax ne ko sëñ bi mi ngi ci yoon kon jërul ngay dem mu daal di fomm aw yoonam kon lii moo taxoon demul fekk sëriñ bi waaye yéeneem moo doonoon loolu a ah, ñu gis ci loolu kon ne nit la koo xamante ne ni ku amul yitte la ku joxoon euh, ku xeeb ñàkkoon a xeeb boppam la ndax boobu bu fekkoon ne at yu at yu néew mënoon naa tax mu ne ah man daal lii jërul ma ciy dugg ndax bu ma ci duggee duma ci am na waaye la muy doon doon ndaw teewul mu def la mu war a def ba suñ borom dogal ca lam cay dogal bi sëriñ bi ñibbisee ñu yóbbu ko gànnaar 1903 mu daal di ne li nga xamante moom la ñëpp bëgg daal mooy am ngërëmul yàlla danaa ko am te danaa fekk sëriñ bi ca gànnaar kon foofu la mottalee tarbiya ruuxiya bi ma doon wax sànq foofa xam ngeen ne sëñ Massamba nekk na fa ak moom moom mi nga xam ne ñoom ñaar ñoo ñooy li sabab jataay bii tey sëñ Massamba nekk na fa moom itam di def tarbiya ruuxiya ci gànnaar ñu daje fa wax nañ ne def na fa ñaari at wala ñaari at ak lu topp sëriñ bi yeewi ko wax nañ ne bi ko sëñ bi yeewi mi ngi ko yeewee ci bayit yi bayit boobu nekk ci xam wa sukri bi sëriñ bi di waxe ne inna la ila saar saara xat xasadu ziyaarati faaraqu daarayn aw zaara foofu ci bayit boobu ci la ko sëñ bi yeewee wan ko ne ko daal li nga fi doon wut am nga ko mën ngaa delluwaat nag jox ko ndigal ne ko na nga sànci ab dëkk te bañ a sori Cheikh Anta boobu maam Cheikh Anta ma nga fële ca gaawaan moom mu sañ ci jaaxal ca foofa bu ko defee ci la sañ ci dëkk boobu jaaxal nekk fa di tërbiya dong yi nga xamante ni ñoom la ko tedd ki booleel nekk fa ba sëriñ bi ñibbisi xam naa damay tënk rek bu bi sëriñ bi ñibbisee njaareem nag ci la ko wooyee ci wetam ne ko nag dama bëgg nga ñëw dox sama diggante ak tubaab bi ndax xam ngeen ne booba sëriñ bi résidence surveillée la nekk tubaab bi saa su ne dañuy ñëw ci moom di wax ak moom te faw am ku ne ci wetu sëñ bi koo xam ne dana mën a wax ak tubaab yi di ko tekki li nga xamante ni moom lay wax kon loolu la fa nekke woon di traduire muraasalaat yi nga xamante ni kitaabiya wala safawiya yi ci man di am yooyu yëpp moo ko daan moo ko daan tekki loola contribution bu am solo woon ci jamono jooju ndax moom rek moom moo ko mënoon ci ñi mu bokkaloon sëriñ Touba mu nekk loo xam ne tam war nañ ciy jànge ndax jamono yooyu ni fi fi jamono tolloon ñu gis ne amoon na ci njabootu sëñ bi ku jàngoon tubaab ba euh, liggéey ci liggéey bu toll noonu ci njaareem bu ñu demee ba tey yoonu murit ñu naan léegi est-ce que jàng làkk wi baax na ak jàng làkk wee baax na loolu jàpp naa ne retard bu mag a mag la ndax bu bonoon kon Serigne Touba du bàyyi njabootam mu di ko jàng ba di ko ci liggéeyal ba am ci ngërëmul sëñ bi ndax moom ba muy jógee gànnaar am na ngërëm waaye bi ñëwaatee sëñ bi da koo sant ab liggéey mu def ko ba sëñ bi gërëmaat ko ci kon loolu war na cee dégg ne ñun làkk yëpp lañu war a jàng ndax sëñ bi boo bëggee jottali message am ci àdduna bi àdduna bi ñëpp dégguñ wolof wolof yi moom daanaka mën naa ne fii la yam ñi taxoon sëñ bi dëgg-dëgg di ñëw ba woo waa jéeri ak waa géej ñi ci ëpp dégguñu làkk yi ñu dégg ñun kon liñ yor dañ ko war a dañ ko war a wane te làkk yi ñu ko war a wane nag boo ko jàngul noo koy defee kon loolu retard bu mag lañ ci am xañ na ñi ngi ciy liggéey waaye des na ndax yu ci bare bari dafa des ci xeli nit ñi ñu jàpp ne jàng làkk tubaab dafa bon ba yu bare bari ñu ko ciy wax te yooyu yëpp demewut noonu làkk moom làkk la moom làkk yëpp a yem waaw moyen la rek de communication boo xam ne da koy xam ngir àgg ci xam-xam du du du du raaya wasiila la ngir àgg ci xam-xam wala jottali message jeex na moo làkk yëpp a yem bu ko defee loolu jàngat la boo xam ne def naa ko ci wane ne war nañu fexe jàng làkk yëpp buñ fekkee bëgg nañoo jottali message bu sëñ bi ñeneen ñi nga xam ne dégguñu aw làkkam ci gàttal rek Euh, Jurbel googu am na ay ay ay liggéey yu am solo yu mu fa def yoo xamante ne nii euh, xam naa am na livre boo xam ne bind naa ko ci moom yaatal gi ak yëpp xam naa ku ko soxla moom faaw nga dem ci kii bi ndax yu ci bare bari du du xaj ci jataay bi euh, gannaaw tarbiyaam boobu mu am ngërëmam mu am ngërëmul sëriñ bi ab liggéeyam ci yoonu murid la ci ëpp solo mooy sanc ay dëkk comme ni ko ñëpp xamee defar daara di yar ay nit di leen jàngal di liggéey di dunde aw ñaqam loolu moo ëpp ci liggéeyam ci yoonu murit gannaaw bi fi sëriñ bi jógee moo tax sanc na dëkk yu baree bari sanc na dëkk bu ñuy wax Mbàkke Siin mu nekkoon ci Siin ñu doon ko wax Bangaaj mu sañc teen tubaab ba mu xatee ci moom mu jóge fa sanc Mbàkke Saalum 1928 jóge fa sanc Mbar dëkk bu mu sanc itam daara la fay def gone yi di jàng mu wut borom xam-xam boo xamante ni moom mooy jàngale di ji yore jumaa ji di def lépp loo xamante ni lu jëm ci diine la ba mbar ba mu fa ñëwee sax dafa laaj sëñ Mbàkke Buso mu yónnee ko ci ay njabootam moom mu yabalal ko ku ñuy wax sëñ ndaam mbar mooy waajur sëñ Moor Buso mi fi jóge léegi ñu xam ne mbar googu yàgg na fa lool ab diir def na fa lu ëpp fukki at di jàngaleel sëñ Balla Coro loolu wane ne ku fonkoon xam-xam la ku fonkoon diine la dëkk yim sanc yëpp tam noonu la leen noonu noonu la leen def lenn daal xam naa ne euh, yaakaar naa ci lay ci lay tëje ndax ñi ngi may wax ne waxtu bi xam naa ne faw ma bàyyi ko xel ndax guddi na li ñu war a jàngate ci mag ñi seen dund comme ni ko ñëpp xame rek ñu fonkoon xam-xam lañ ñu fonkoon diine lañ te Sëriñ Tuubaa damay gis ne tubaab yi suñ dee wax mouridisme suñ ko dee melal dañ naan mouridisme dafa ñëw pour xeex colonialisme rek looloo ko taxawoon a jóg du leneen foofu rek la yem kon day mel ne kon bu fi colonialisme jógee mouridisme waratul sax am ndax looloo ko taxoon fekk loolu njuumte la te loolu bu fi nekkee ba tey ci ñun ñii la war nañoo gës loolu ba xam nu mu demee ñu tontu ko ndax Serigne Touba dafa am lu mu doon ne ci ay waajuram ñëw dolli ci lam ci dolli waaye nekkul ne xeex colonialisme moo ko taxoon a jóg waaye dafa am doona lu fi nekkoon ca maaram ba agsi ci Mamour Anta Sali mu jël loolu moom yokk ci leneen loo xamante ni mooy mouridisme tey bu ko defee mag ñi nag ginnaaw ñoom ñooy suñuy saxaaba ñu mel ne sëñ Balla Coro mi ak sëñ Masamba nga xam ne dañoo war a roy ci ñoom ndax ñoom sëriñ bi li mu indi ci ñoom la ko njëkk jëmbat mu door a tasaaroo ñooñu ñooy suñuy royukaay war nañ leen a fonk bu baax a baax war nañoo dundal seen seen seen ndono bañ koo sàggane ba mu réer comme ni ko ñëpp waxe ci jataay bi euh, sëriñ Balla Coro boo xoolee <clears throat> bi muy sanc mbar mën nga ne daanaka sacrifice la def ndax boobu am na juróom benn fukki at ak lu teg loolu nag ku ko am dem dugg ci àll bu xonq di sanc ab dëkk xam nga ne sa jëmmi bopp taxut kon sacrifice sacrifice yi mu def la pour ay njabootam ak pour génération bi war a ñëw li ñu doon wax ci defi yi nga xamante ni génération bi dafa dañoo dañ ko war a affronter mooy loolu ay maam bu ñu sacrifier seen dund sacrifier seen lépp xam nga bi fi ku tedd ki jógee boobu amoon na barke mënoon naa dem dëkki Ndar wala Ndakaaru wala feneen waaye dafa duggaat àll bi di gor ay dëkk di sanc loolu sacrifice la te ay njabootam a tax ñu def ko kon loolu tam waruñ koo bàyyi mu doon lu neen sacrifice bu toll noonu kenn du ko def ñu di ko bàyyi muy neen war nañoo suuxat li taxoon mu di ko def ba joxaat ko yeneen génération ñu ñuy wax mujjee euh, puso bi mu réer mu bañ ñoo dal moom nag ci fi may jeexale ci ay ndénkaanam daan na wax ne maa ngi leen di dénk ngeen jekki te noppi liggéey tey jaamu yàlla te ku fi nekkal seexul xadim na leen moom ni mu moome mbubbam moom loolu la daan dénkaane loolu la daan dénkaane loolu la daan oh, dénk ay njabootam yëpp ay njabootam tam ci loolu lañu nekk daanaka xam naa ne eh, bu dul événement bu mel nii li ngay leen ci dégg du bari daanaka lu mel nii rek ci nga leen di déggee xaj na eh, loolu la ñuy sàmmoonteel bu ko defee daal xam naa ci gàttal wax lépp moom du yomb ci jataay bi waaye maa ngi jégglu bu baax a baax lu ci euh, xaw a juuñu rek ñu xam ne ci xam-xam bi la xam-xam bu gàtt bi waaye yéene ji moom am na am na fi maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah wasalaatu yi tedd yi fi ñu leen di nuyu di leen ziar leen dokkeel di leen balaax di leen balaax di ñaan bu ñu santal ba ñu jégal di jégalu baax nag ci toog gi ñu toog suñu kilifa yi ci kaw daanaka jotaay bi neexut ci ñun ndax loolu <laughs> ñu ngi ko jégalu bu baax suñu Cheikh wala ñuy <laughs> xam naa kàddu yi moom kàddu yi cant ak rek bàyyi ko ci sëñ maam mi nga xam ne tey moo toog toogaayu Cheikh Balla Thiaw te ñaan mu yàgg lool mu wér kàddu njaboot gi gépp di kàddu cant ak ngërëm ak ñaan. waaye mu jëma ko ci njabootuk suñ sàmba gi suñu maam ju baax jooju euh, di ko jaarale ci loxob suñ soo mi nga xam ne moo toog ak toogaam te ñu ñaan mu yàgg lool moom itam euh, lépp na ñu ko teg ci loxob suñ seex mi nga xam ne mooy kilifa jataay bi sëriñ wax ne mu ngi leen sant leen gërëm ci euh, lii ngeen def muy feddali ak bokk te muy war a ndax lislaam ni mu gis ak bokk daanaka feddali gi bu dul njariñ li ci ne ci ak ak lim nekk lu naturel dafa nekk jàmm yàlla boo demee ay alxuraan li muy wax ci euh, ulul xurba bari na lool lool lool bis zul xurba liñ ci ñëw def bari lool lool sul da ci bari lool lool te lu ne yàlla ci da koy digle euh, te tey am lu mu ca def nag moom itam du mat di bàyyi xel yàlla bi muy bind doomu aadama yi euh, daa bind kenn jële ca ña des loolu am lu ci jublu su ko neexoon muy bind aadama yu baree baree bari bind awa yu bëree bëree ba duñ bokk dara waaye daa bind benn aadama rek wala sax man naa bind benn aadama benn awa duñ bokk waaye daa bind benn aadama jële awa ca biir aadama ba yeneen aadama ak awa yu jógewaat ci nag la muy la mooy kon ñu mënuñoo taxali ko kon bokk gu ko la goo xam ni moo gën a ko wala bokk moo gën a dëgër ci bokk yi ci des moo gën a bokk dëgër bokk diine doonte bokk diine gën a yaatu moo gën a dëgër bokk deret doonte bokk deret bokk dëkkandoo doonte moo xëy na gën a kon bokk ak deret googu euh, fetlik bu mu fetliku euh, te borom bi itam sax yëmu ci defe ko na da ko wax yaa ayyuhan naas ittaqu rabbakum allazii xalaqakum min nafsin waahidatin wa xalaqa minhaa zawjahaa wa batha minhumaa rijaalan kasiiran wa nisaa yëmu ca waaye mu ne wattaqu llaaha allatii tasaaluuna bi wal arham ni inna llaaha kaana lakum raqiiba ma maa ngi xool ba xam ne lu yéen ciy def kon euh, lii dara gënu ko am solo fetli bokk gi te ñu xam ne bokk yi lii jafe na fa mu amatul bëkk démb damay déglu ci rajo bi information yi ñu wax ni Côte d'Ivoire président de république Alassane Ouattara bi am na benn prix bu mu teg boo xam ni pour famille bu gën a déggoo maanaam borom kër bu gën a mën a yor famille daal nga xam ne fi ne am na ay critères yu ñu ko wutal dañuy def ay test ñi ñuy posé seeni candidature ñuy enquêté xool yow diggante soxna si ak ak ak ak borom kër bi ak doom yi nu ñu juboo parce que foofu guerre bi loolu moo ko indi mm-hmm. day dem ba yow sa doom mënu leen communiquer waxuma waxuma dëkkandoo bi waaye sa doom bi ne ci kër gi doom bi way jur yi mënatuñoo communiquer nga xam ne seen ennemi mën naa noonu bi mën naa dugg ci biir kër gi di tas kër gi te kenn du xam ndax yow bu dee nit da am xarit boo xam ni fële lay jóge ñëw di diwee yow loo xam ne sa yaay du koy waxab jàmm moo gën a wax sa way jur waxab jàmm moo gën a wax ak sa borom kër wala sa soxna problème am na te loolu gis nañu waxuma sax ay nit waaye léegi réseaux yi nga xam ne moo ñëw whatsapp yi da koo xam ne day am junni xariti euh, whatsapp te doom benn xarit bu mu dëkk ci koñ même waa koñ sax bu leen rombee du leen nuyu kon feebar lañ yor boo xam ne fi ne te alxuraan fajoon na ko bu yàgg nag alxuraan fajoon na ko bu yàgg waxoon na ni kër gi ñaari way dencati ak seeni doom nii yéen ñii bu leen neexee bu leen naqaree da ngeen di donnante kenn mënu ci dara kii sa dooma même bu ngeen xeexoon xuloolu xanaa mu rey la te tey ko waaye loolu loolu da ngeen di donnante kon dundal ak bokk bokk deret surtout am na solo lool suñ suñ def alhamdulilahi rabbil alamin bi yàlla xiiree njabootu suñu tubaab gi ci loolu ñu xewalaat ko muy lu am solo lool wax ni mëtt a xeet kon sëriñ bi naan mi ngi leen sant leen gërëm ci te lii jëkku ci lii jëkku ci na ngeen koy doxee ca la nga xam ne teewaay yàgg yéeg yàgg yafay xew yépp loolu moo jiitu lii kon sëriñ bi mi ngi leen sant di leen ci gërëm la ca des xanaa rek nu sant ci turu daayira sëti suñu bàll yi daay def sëti sëñ Masamba yi ci taxawaay yi ñu defat di wax ni tàllal nañ leen loxo fas yéene ànd ak yéen euh, liggéey bi ndax lii moom rek moo am solo gën a rafetal bokk gi gën a rafetal ànd bi euh, gën koo suuxat kon sëriñ bi neen mi ngi sant di gërëm di ñaan euh, lii yàlla na sax yàlla na sax yàlla nañ ci daje ngërëmal mag nañ koy defal te yàlla teg ñu ci seen tànk yooyee te dëgëranul ca lim ni ina li jën a wa tabatum zurriyatum bi imaanin alxaqna bihim zurriyatahum nee na yàlla nam dajeg loolu comme dafa guddi nag kàddu yi ah, suñu seex li ci def mi saw ko man ngaa wax fii pour man ngaa wax fii pour mbooloo bi moom daal sant nañ ñëpp gërëm ne ñëpp surtout ñu àndal ñëw fi muy suñu bokki bopp yi nga xam ni ah, suñu mag yi ñi nga toog mag la ñuy wax ne wax yàlla ah, dañoo xër ne seeni doom a ngi ci biir jotaay yi waaye dañoo ñëwal seen bopp ndax xam ni lii dafa rëy lii dafa rëy cër bi dafa rëy lool rëy na ci ñoom ñu ci ne joxoon nañ leen ngàtt ni mën ngeen a waaye ñun daal faaw ñu ànd ak ñun ñëw kon euh, sant mënta yo sant ñu ngi sant ñëpp di gërëm di nuyuwaale sama bokki raw drahim yi nga xam ne moom <laughs> ci ci ci ñoom laa bokk te <laughs> ñoom itam taxawal seen taxawaay rafet na lool di leen ñaanal sas wii nga xam ne moom lañ suñu murtaa si si si si si euh, muntaxaa sas euh, yàlla téeñal ñu ba ñu àggale ko fu mu ko bëgg a àggale tey ñaan ñëpp jàpp ci nag wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu asalaamaaleykum yi noo ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Moustapha moom sëriñ Massamba Mbacke ak mboolem njabootu sëriñ Massamba gépp bokk na ci jëwrinam sëriñ Mamour Mbacke ak sëriñ Ibnul Xabiir ak mboolem njabootu Cheikh Massamba gépp di teg nuyoo boobu ci loxo ma sëñ maam Balla mu tegal na ko ci loxo sëñ maam Mor Mbàkke mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Balla Thioro ñu xam ko bu baax muy nit ku baax muy nit ku gore nit ku am jom nit ku am fulla nit koo xam ne xam na fi muy teg tànkam fa tabarakallahu ba yàlla dogal muy sëñ Balla Thioro te ko sëkk boo gisee nu xam ko dañoo dëkkoon man ak moom ci Mbirkilaan ci Touba Mbéra mu yàgg fa lool nu daa ko gis lu bari daa dem ci moom lu bari nit ku baax la ngeen jotal ni ko cantu sëriñ Moustapha waaye ngeen jotal ni ko cantu sëriñ Maamoor ak njaboot gi yëpp sëriñ ñu ngi sant bu baax ndax tur wi jubluwuñ ci woon lenn lu dul dëral bokk gi rek ak jokk ko ndax suñ boroom dafa wax ne ku jokk ak bokk ma jokk ko la wax nga ko léegi wattaqu laaha la si tasaaluna inna allaha kaana aleykum raqiba ay kilifa yu bari tudde nañ leen bis bii te la mu jur mooy bokk gën a déggoo ñoo ñu gën a ànd ñoo ñu gën a bëggante tabarakallahu kon loolu dañ koy jëme kanam waaye duñ ko delloo gannaaw ko ndax lii nga wax léegi nañ sàmm bokk gi jëf ju rafet ji ñu sàmm ko te bañ bàyyi loolu lañ fas yéene nekk te wóor nañu ci loolu ngeen nekk te ña ko jiitu woon it ci loolu lañ nekk man fa tabarakallahu ñu ngi sant yàlla ci loolu bu baax sëriñ Masamba ak sëñ Balla Coro nag yàlla dafa dogal ñu bokk leen ñu bokk sëñ Mor Anta Sali ñoo bokk fu ñu gënee àdduna muy pataar ñoo bokk nekkoon ci sëriñ bi yaroondoo fi mu jàngal leen kenn ku ci ne mu dalal la alxuraan moo la dalal la alxuraan dëgg la sëñ Balla Coro màgge na ko lu mat ay juróomi at wala juróom-benn at màgge na ko ndax la ko màggee sëriñ Masamba noonu la ko xamee woon jox ko cër boobu bu baax bu ñu nekkee fi kër sëriñ Touba ci njaareem itam cër boobu la ko joxoon ba mat sëkk lépp loo xam ne daf koy wax daf koy wax ci njëkk daf koy wax ci sutura daf koy wax ci taalibe buy wax ak sëriñam sëriñ Massamba noonu la meloon moom defutoon kenn ci bokk yooyu lu dul kenn ku ne mu jàpp ne yaay sëriñ Tuubaa ci moom rek tàmbale ko ci maam Thierno mi seen mag ba ci ka mucc ci moom Seex Absa noonu la leen di kon doxin woowu mu doon dox moo war nekk sunu royukaay noonu moo war nekk sunu référence ndax sëñ Masamba boo koy seet ci xam gi nga di ko seet ci ni mu toll di ko seet ci fi ko sëriñ Tuubaa tegoon te yooyu gis ko woon moom li mu gisoon moom mooy dëgg la rakk la waaye taalibi la taalibi googu nag moo ko gënoon lu ñor moom ci la nekkoon ci la tarbiyewu ñu ko waxee moom ak sëñ Balla Coro sëriñ bi leen tërbiyaal ko ko kon fa ànd boobu dafa yàgg njaboot gi war nañoo fexe nu ñu yokke loolu te gën koo saxal te loolu mooy li nga xam ne way jur yi dese nañu ko te war nañ cee dellusiwaat bu baax lii sëñ Muntaxa woote barki démb yal na yàggal ko fi te wéral ko te nañ ko ndax dundam gépp ci xam-xam rek la ko yeexal am na nu yàqiin ne insha allahu bëggam boobu suñu borom dana ko def ndax teg na ko ci loxo yoo xam ne ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax te loxo yi loxo yu dër la yoo xam ni xam nañu te xàmmee nañu te ñu ngi ciy liggéey yàlla leen ci yàlla dimbale ba mu àgg fa nga xam ne fa lañ bëgg mu àgg fa loolu barki dem rek sëriñ Maamoor moom sëriñ Murtada ubbi na fi université boo xam ne taalimul aali lay def ñi doon jàng waroon di dem bitim réew di fa jàngi mën nañoo jàngee fii fa tabarakallahu loolu ak yokku la buñ ko xeeb nan ci a soññ te gën cee soññi njaboot gi te ñu gën cee góorgóorlu defee dana mujj li nga xam ne moo su mettit yi nu ciy am ak jafe-jafe yi nu ciy am ak naqar yi nu ci am sunu borom dana ko mujj far ba mu jar tàkk ndax lu baax moom kanam rek lay jëm te lu kon nag gannaaw rek la jëm mu dalee góorgóorlu lu baax kon thème bi ñu ngi sant sëñ Fall lu ñu ko doon développé li mu ci wax ak li ci jëf ak li ci gis yëpp ñu ngi koy sant di sant sëñ jaxate di sant ñëpp ku jox képp koo xam ne intervenir nga ci ci ci thème boobu fa tabarakallah di sant yàlla nag leen xamal ne sëriñ Tuubaa lii rek la bëgg li ngeen def ci bay wii ci ci waccal waccal waccal waccal ixwati wa nasabi fi rahmatin yu macci daani yi waccal jamia ixwati wa nasabi fi rahmatin yu macci daani nasabi loolu rek la yéene woon ay loolu rek la leen bëggaloon kenn kum ci yoon ku nekk moo yaa ko gënal ku dul defal li wax naa ko léegi ci sëñ Moustapha defal na ko loo xam ne defal ko woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom tabaraka naqaree dégg waaye lu am la ndax sëriñ yonent bi sallallahu alayhi bi mu wóotee xoolee si ñoo ko weddi ñoo ko njëkk a weddi demoo ñoom la bokkal Sëriñ Tuubaa nag bi ma woote ay bokkam a ko njëkk wuyu ànd ak moom wuyu gu sell goo xam ne reseguñ ca dara Sëriñ Tuubaa rek a am keneen am ko say mag say rek ñoo xam ne yéen lépp yéen a am ay daraja ñun nangul la wuyu la Sëriñ Tuubaa rek a ko am keneen am kon yàlla na yàlla dolli sutura bu baax te yàlla bàyyi fi ñi nga xam ne ñoo leen fi wóotu ñoo fi wóotu Sëriñ Tuubaa waaye bàyyi fi ñii nga xam ne ñoo wutu Seex Masàmba ak ñi wutu sëriñ Balla Joob sëriñ Moustapha mii nga xam ne moo fa wutu sëriñ Masàmba di taxawaay kenn ku ne xam na ne mooy taxawaay bi gën a rafet ci njaboot bëgg leen yërëm leen suturaal leen di leen teral loolu mooy li muy def waxtu mu nekk yal na yàlla guddal fanam yal na ko yàlla wéral yal ko yàlla kàttanal suñ maam Balla ñu ngi sant yàlla bu baax di leen sant di leen yóbbante jëm sëñ Maamoor di ñaan yàlla nu yàlla dolli sutura bu baax ba lii gën a jëm kanam bu baax te dara bañ cee wàññeeku wa maa zaalika alallaahi bi aziiz wa salaamu aleykum in kaana afqara ixwaani alqadiimi maan fa inna immato min akbaari alximami laay ba fii siwa taqwa ilaahi wa دام القديم بلا ميل ولا سأمين لا عيب فيه سوى تقوى إله وإيق دام القديم بلا ميل ولا سأمين رعيب صدر سليم القلب من دنس سمس من العق قد تجود جاز لمي رعيب صدر سليم القلب من دنس samsun min alxaqi qad tajlu du jaasulami